mbokki Sénégal maa ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen ndokkeel ci weeru koor gi di waaj a tàbbi muy shahru ramadan mubarak di weeru yërmande yal na suñu borom tàbbal ci ci bismillahi rahmaani rahim ñu eggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin yàlla nangul ñu weer wi nangul ñu suñu jaamu yàlla wàccee xéewal gu yaatu ci suñu réew ñu jëriñoo ko te tal ko ci barke yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam euh, démb dama defoon benn réflexion euh, tuddee ko je plaide pour le moratoire euh, si couvre-feu bi ñu mën ko ajandi ba weeru koor gi jàll wala suñu ko ajulit ñu fexe ba jamono ji nga xamante ne ñi ngi ciy dugg ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi te yàlla teg ko mission bi ñu koy ñaan mu dawal yërmande ci population bi ginnaaw bi nga xamante ni ràññee nañu coono yu metti yoo xamante ne mi ngi dal seen kaw ci jamono ji rawatina nag bi couvre-feu bi amee nga xamante ne dem beeg dikk bi lijjanti yi lépp dafa mel ni dafa daal di compliqué lool ci kenn ku ne ci ñun may woo le président de la république que mu nekk mu yokk yërmandeem d'abord Euh, ci wàllu couvre-feu bi su fekkee mënuñu ko yi définitivement ba weeru koor gi jàll ñu xool naka lañ koy oyofalee yóbbu ko euh, vingt deux heures ba quatre heures du matin vingt deux heures ndax dina permettre nit ñi euh, julli timis dugg ci conditions yi war ndax xam nañu ne sénégalais yi ci ëpp tey ji dañuy dund au jour le jour ndogu bi daanaka su desee ay minutes yu néew lañu koy lijjanti ngir mën mën mën ko am ba ca des dina leen permettre aussi ñu julli gee naafila li tax quatre heures du matin parce que euh, daanaka mi ngi tombeek nodd bu njëkk ji nga xam ne si la nit ñi commencé génn ñi war a tàngal tàngal seeni reeru démb ñi war a togg laax mbaa fonde mën ko togg ci ci ci ci guddi gi ci noonu fajar gi laataa muy jot ñeneen ñi nga xam ne dañu war a génn dem jëndi mburu ñeneen ñi nga xamante ne dañu war a génn xool seen xarit bu bu xëdd am seen kër ñu dem xëddee ko daal di ñëwaat tombe ñuy salaatu ñu mun a julli salaatu daal di dem noppalikuwaat na ci président de la république bàyyi xel ndax kat weer bi weeru yërmande lu mu gën a yaatoo rek mu gën ci ñi nga xamante ne ñu ngi tàbbi ci weeru koor gu màgg gi euh, ba ca topp maa ngi wax président de la république comme les mosquées sont fermées sur toute l'étendue du territoire ñu fexe kat ba jamono ji nga xamante ne ñi ngi jëm ci naafila ñu utiliser la chaîne RTS ci rajo comme télévision organiser des séances de naafila nationale nit ñi jàpp seen télé topp naa fi la ko lu mën a nekk la nag ndax jamono bu ne dafa war a adapté wu ci situation bi mu tombeel ba ca topp mooy suñ borom il parle aux doués de raison inna fi xalqi samawati wal ardi waxtilaafi layli wa nahar la ayatin li ulil albab il parle aux doués de raison à chaque fois dans le Saint Coran et nous devons nous adapter à chaque fois qu'il y a ces ces événements douloureux Euh, yal na donc yàlla may président de la mu dégg euh, kaddu gi euh, ba ca topp aussi ñu ngi koy demander à ce que ñu xoolaat bu baax ni nga xamante ne moom lañu ñu lalee ndimbal gi jëm ci askan bi dinaa ci ñëwaat ci une prochaine vidéo incha allah di nuyu ñëpp di sant ñëpp alxaqu min rabbikum fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu